Bonjour chers auditeurs, euh, bienvenue dans ce numéro 107 de Sud Éducation en compagnie de Mariem. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Mariem, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, nous allons parler des cadeaux de Noël puisque les, les parents doivent commencer à se poser la question de euh, eh bien quel cadeau pour leurs enfants. Te connaissant, je suis sûre que tu as déjà acheté les tiens. Alors, je vais quand même te demander, Mariem, de nous éclairer un peu sur la symbolique du cadeau de Noël ou du cadeau de fin d'année, c'est selon, puisqu'il y a des gens qui font le choix d'offrir ces cadeaux-là à la fin de l'année. Alors, le Noël est une fête religieuse, tout le monde le sait, mais c'est aussi devenu une fête euh, qui est fêtée par tout le monde, quelle que soit la confession des personnes, puisque euh, euh coïncide avec la fin de l'année, ça coïncide avec euh, le Nouvel An, et donc c'est une période où il est de tradition internationale de faire la fête et aussi de faire plaisir aux enfants. On leur fait plaisir non seulement en leur offrant des cadeaux, mais aussi en leur faisant faire des kermesses, des spectacles, ce genre de choses. Et, euh, et donc, euh, pendant cette période, offrir euh, des cadeaux porte une, une assez grande symbolique parce que les enfants peuvent se sentir euh, récompensés parce que l'année est en train de se terminer. C'est une manière aussi de les pousser euh, à peut-être se dépasser parce que pendant longtemps on leur a dit si tu es sage, eh bien tu auras euh, un joli cadeau à Noël. Et puis aussi les combler puisqu'ils vont écrire une lettre au Père Noël et puis ils vont attendre de savoir si méritent que le Père Noël fasse l'effort de pour leurs efforts. La symbolique, elle est très forte aussi, puisque euh, on fait la fête, à la fin on reçoit quelque chose, et puis ça va créer du lien à l'intérieur euh, de la famille. Et donc, euh, fait toujours euh, plaisir, aussi bien à ceux qui reçoivent qu'à ceux qui donnent. Alors, euh, en cette période, euh, euh, Mariam, on est à une époque plutôt où euh, euh on a un énorme choix. Euh, il y a les magasins en ligne, les boutiques elles-mêmes, etc. comment est-ce que, quels sont les critères de choix des cadeaux et même comment peut-on aider son enfant à écrire sa lettre au Père Noël pour demander son cadeau Selon quels critères Alors, pour le parent, le critère, ça euh, parce que quand on a plusieurs enfants en plus, on va pas pouvoir leur offrir à chacun un cadeau euh, qui est très très cher. Euh, il y a également les centres d'intérêt, les goûts de nos enfants, et puis il y a également, bien sûr, l'âge de l'enfant. il y a peut-être un dernier critère qui va être lié au parent lui-même, peut-être ce qu'il a envie de communiquer à son enfant à travers le cadeau qu'il va lui offrir. peut-être que le on est là pour faire plaisir à, son enfant, on est là pour le récompenser aussi d'avoir été sage. Et s'il l'a vraiment été, on va vraiment euh, lui offrir quelque chose de beau, quelque chose qu'il a souhaité. Donc, euh, cet instant qu'on prend pour écrire la lettre au Père Noël, c'est bien le moment où on peut savoir ce qu'attend l'enfant. Parfois, les enfants ne savent pas, mais aujourd'hui, ils sont quand même bien aidés par la télévision qui nous bombarde de publicité a qu'est-ce que euh, euh, l'enfant, euh, qu'est-ce qu'il aime, parce que parfois rien que voir une, une, publicité va leur donner envie. Mais par exemple, un enfant unique qui ne peut pas jouer à des jeux de société avec d'autres frères et sœurs, et les parents sont pas tellement disponibles, et eh bien peut-être que ça ne sert à rien de lui acheter un, jeu de société. Il faut plutôt lui acheter quelque chose avec lequel, un objet avec lequel il peut jouer tout seul. Donc ça, peut être aussi un vélo, pourquoi pas euh, individuel, qui va permettre à chaque enfant de se sentir quand même un petit peu, euh, d'avoir un, un, cadeau qui lui est euh, particulièrement destiné. Mariam, je sais que je vais te poser une vaste question, mais on a encore peut-être une autre émission pour y répondre. Pourrais-tu commencer à me parler des meilleurs cadeaux qu'on pourrait faire aux enfants Alors, les parents, ils ont tendance à penser que le meilleur cadeau que l'on puisse faire pour un enfant, ce serait par exemple un livre, parce que les parents vont se plaindre du fait que les enfants n'aiment pas lire. quand on choisit euh, un livre, euh, il faut le choisir avec beaucoup de soin, c'est-à-dire qu'il faut euh, prendre un livre qui va vraiment intéresser l'enfant. En général, c'est un livre avec pas trop de lecture de, dedans, c'est-à-dire pas trop épais. Peut-être, auprès des enfants. Euh, ça peut être aussi pour des un petit peu plus jeunes des livres d'images, donc il y aura énormément d'images, de belles images, de beaux dessins. c'est vraiment des livres qui sont aussi très éducatifs. pour mieux répondre à ta question, je dirais qu'un cadeau qui est à la fois ludique et éducatif, c'est vraiment très bien. des, livres où on peut trouver et le jeu et le côté euh, euh, comment dire euh, littéraire du livre avec une belle histoire. c'est un très beau cadeau. Et des jeux qui sont, par exemple, les jeux d'imitation, comme euh, le jeu de la marchande euh, ou encore avec des petits légumes. Donc c'est vraiment très bien pour de jeunes enfants, par exemple, pour connaître les noms des légumes. ce sont des jeux qui sont vraiment très bien. Merci Mariam pour ces éclairages. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus d'ici le décembre. Je pense que tu nous apprendras beaucoup de choses. Au revoir. Ah, euh, mi ngi jëm ci wàllum Euh, balaa ñuy egg ci tànnum cadeau bi euh, Mariem dama bëggoon nga jéem ñoo faran fàcceel euh, lii cadeau nowel wala sax cadeau fin d'année li muy tekki vraiment ci bëtu xale yi wala ci bëtu parents yi ah Noël nag dafa fekk nii dafa nekk benn fête bu boo xamante nii chrétiens yi ñoo koy féete waaye léegi ci àdduna bi yëpp nit yi lu seen diine mën ci nekk dañuy féete Noël ndaxte dafa dafay tombe ak feetu fin yi maanaam fête bi su at bi di dee euh, fépp ci ci dëkk yëpp dañ fiy dañ ciy def ay fête dañ ciy profito pour même di di euh, di offrir ay cadeaux suñu ay doom wala sax suñu ay dëkkandoo wala di di invité nte sax ci suñu ay kër pour. Euh, pour marquer fin wu année bi euh, moo pour xale yi nag Noël dafa nekk vraiment seen période bi nga xamante ni ci lañ leen di euh, may ay fawukaay mais aussi ci benn période boo xamante ni dañ leen di génnee dinañ dem defi ay activités dem ay parc d'attraction ñu wala sax parfois ci yenn famille yi dinañ ci euh, profito def ay voyage dem seeti seeni ay mbokk yu nekk bitim réew moo tax mu nekk benn période boo xamante ni xale yi dañ koy bëgg dañ koy xaar aussi suñu bëggee sax suñu doom yi sage dañ leen di wax soo soo sagee soo deful benn bêtise dinañ la dinañ la jëndal cadeau Noël ba nga xamante ni xale yi suñu gisee ni Noël mi ngi jub si dinañu commencé sage wala dinañ commencé aussi euh, gën a jàng école comme ça ñu mën leen may ay cadeau Noël justement pour que wala cadeau fin d'année pour que pour euh, wan leen ni que ni vraiment gis nañu seen i seen i ay effort Euh, Mariam nañu nekk ci jamono boo nga xam ne euh, jënd bi dafa yombul ndax euh, li ñu war a jënd dafa bari lu nekk lañ lay wan xale yi lu nekk la ñuy bëgg naka nga mën ñu ngi mën a dimbalee pour ñu xam naka la ñuy tànne cadeau yi ñu gën a neex suñu doom yi ñu bañ a juum ci liñ leen di jëndal e même ni ko suñu mbokk chrétiens yi di defee wala ni ñu koy defee ci école yi sax pour ñëpp dimbali xale yi ñu bind seen lettre adressé ko petit papa Noël. Mm-hmm. c'est exactement lan la seen doom xam waaye ku ku jur sa doom xam war nga mën a xam ay guwam te nag cadeau bi soo koy choisir da ngay euh, ku nekk fi sa poche toll euh, da koy choisir en fonction de justement sa budget nag ñaata ñaata xaalis nga ci bëgg a def waaye aussi euh, ci sa âge xale bi ndaxte at bu nekk ak cadeau bi nga xamante ni méngoo na ak âge boobu ak aussi li xale yi bëgg ndaxte am na ay xale dañu bëgg poupée yeneen ñi ñoom bëgguñu poupée li leen dàkkal mooy ay jeux de société ñeneen ñi xëy ay livre moo leen dàkkal loolu ci ci euh, ci critères yooyu daal la ñu war a basé wu pour euh, jënd suñu suñu ay cadeaux. Euh, Mariam yan mooy cadeau yi gën yu ñu mën a offrir xale yi en fonction peut-être seen attaque yooyu mais yan yan cadeau daal lañu ñu war a gën a mën a jublu. ay ay parents yu bàyyi nag ñoom dañuy essayer euh, jënd ay cadeaux yoo xamante ni dinañu neex seen doom waaye aussi ñoom tam dinañ leen dinañ leen neex par exemple ay cadeaux comme ay livres ndaxte comme waajur yu bàyyi dañuy wax ni que xale yi liiratuñu euh, soo leen offrir ay livre aussi duñ ko ubbi euh, looloo tax su peut-être su Noël jubsee dinañu essayer jënd ay livres di espérer xëy na xale yi dinañ ko dinañ ko bëgg et aussi dina leen jàppale ci seen njàng mais Noël nag dafa nekk benn période boo xamante ni dëgg premier critère bi mooy li xale bi bëgg il faut que su su ubbee cadeau Noëlam mu mu bëgg dëgg-dëgg li moo tax suñuy tànn ay livres aussi su fekkente ni vraiment dañu bëgg tànn ay livres livres yi na nekk ay livres yoo xamante ni ci biir dafa bari ay images bariwul ay textes tellement ndaxte comme ay bande dessinée wala manga mooy bande dessinée yi jógee Japon nga xamante ni xale yi bëgg nañ ko lool bande dessinée yooyu aussi dafa am ay séries yoo xamante ni dañuy jàll télévision donc souvent dafay fekk xale yi seetaan nañu film bi suñu suñu leen jëndalee bande dessinée bi ci lañ koy gën a bëgg ci lañ koy gën a bëgg ay ay fawukaay nga xamante ni ci biir livre bi aussi de mën nañ ci def ay jeux lool tam neex na lool xale yi yeneen jeux yoo xamante ni dina leen neex mooy ay li ñuy woowee jeu d'imitation maanaam mooy ay fawukaay yoo xamante ni suñ ciy fo dañuy dañuy mel ni dañuy roy ci seen i ay euh, waajur ci ay métiers par exemple ay euh, jouets yi ñuy gis euh, mu nekk ay légumes plastique nga xamante ni déjà dina leen jàngal dina leen indil vocabulaire ndaxte dinañu jàng ay ay mots yu bari vierge yi dina mu nekk ci français wala ci beneen làkk et aussi ñu mën nañ ci foo mel ni dañuy jaay ak wala dañuy jënd mën na nekk aussi ay jeux de construction maanaam mooy jeux yi nga xamante ni dañ koy dugalante mën nañu construire ay mur wala kër wala dara loolu yëpp daf leen di dafay ubbi lu baax bu baax seen xel et daf leen di indil li ñuy woowee imagination ak créativité maanaam dafay tax ñu ñuy gën a réfléchir ba pare gën a développer seen yoo Euh, jërëjëf Mariam ci éclairage yi xam naa fi ak fin bi di egg si di ñu gën a may ay astuces pour ñoom gën a mën a tànn suñu cadeau doom yi jërëjëf di leen dig daje beneen émission. merci Aïda et à